titre bi ñu tànn tey dañu wax le Sénégal post législative 2022 mooy Sénégal ginnaaw bi ñu defee élection législative yu 31 juillet 2022 les commissions départementales de recensement des votes joxe ay résultat la commission nationale de recensement des votes nekk fii ci cour d'appel bu Ndakaaru joxe ay résultats conseil constitutionnel joxe li ñu tuddee les résultats officiels et définitifs nga xam ne yooyu dañuy jàpp ne mooy résultat élection yi li mu wane mooy résultat yoo xam ne la coalition au pouvoir muy Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall ak ñu ñu àndal soo xoolee ci limu député yi ku nekk li nga am ñoom amuñu majorité parce que quatre-vingt cent soixante-cinq député lañ téeméeri député ak juróom-ñaar fi ak juróom su fekkee da nga ci bëgg am majorité ba loo bëgg a mu jàll nga la boog nga am yaakaar mu jàll parce que am na vote yoo xam ne sax xëy na mën na demander loobu loolu mais en tout cas li am solo mooy boo ko bëggee il faut nga am au moins quatre-vingt-six députés muy juróom-ñett fukk ak ñett yoo xam ne soo ko amee bu ñu doon voté tey jii di fal président wu assemblée nationale say ñoñ ñi far ak yow rek doy nañ pour nga gagné nekk président wu assemblée loolu moo tax législature yi ñu daan jàll da nga daan gis ne su président Macky Sall désigné ne Moustapha Niass la tànn comme président assemblée daanaka jërul ñuy dem parce que majorité bi mu fa amoon muy cent vingt cinq députés bu ñu voté forcément dañuy gagné li nga xam ne mooy présidence assemblée loolu nag sénégal yi ñoo décidé woon ne loolu jeex na moo taxoon ñu jox bennoo quatre vingt deux députés jox boo boolee yeeweek wàllu quatre vingt Euh, ñaata quatre-vingts députés jox Thierno Alassane Sall benn ak ñi mu àndal jox Pape Djibril Fall ak ñi mu àndal benn jox Pape Diop ak ñi mu àndal benn Pape Diop ne ko fa ñukk dem jël benn boobu dollil ko Macky Sall mu am majorité am na ci droit parce que ci politique lañ nekk ku nekk am nga droit tànn camp ba la neex mais ñun li nga xam ne mooy suñu droit également mooy acte yu mel noonu su ko nit posé il faut ñu interroger ko il faut ñu wax ci act yi Euh, il faut ñu discuter argument yi muy joxe argument yi joxe bokk na ci dafa bëgg a Sénégal man xaw ma loolu moom mooy ban ban sauver Sénégal euh, euh, parce que ça veut dire man dama koy damay déglu ma ne ça veut dire que ni Pape Diop bi muy dem di wuti député moom su amoon majorité également xëy na da koy jox Macky Sall parce que jàpp na ne su Macky Sall amul majorité réew mi day bloqué et ça xel du ko nagu de xëy na après dina ci ñëwaat mais tey mënoon nañ taxaw lu bari di wax ci li nga xam ne moo yëngal Ndakaaru Sénégal gépp muy hôpital Le Dantec bi nga xam ne dañ ko bëgg a tabaxaat tabaxaat gi moom defe naa Sénégal yëpp ci d' accord parce que man damay yàgg di wax ne Sénégal mérito nañ am hôpital boo xam ne ni ñuy euh, fëgge suñu dënn di ko rafetloo stade bi ñu am ci ñaajo li ëppoon njëriñ mooy am hôpital boo xam ne Afrique ba Afrique daj dañ naan ku bëgg faju ji mën ngaa dem Sénégal nga fajoo parce que am nañ hôpital boo xam ne hôpital yi ca pareek ya ca Italie ya ca Allemagne ak ya ca États-Unis gënewuñ ko dara war boog ya ca Maroc sax gënewuñ ko dara moo tax buñ ne dañuy tabaxaat hôpital Le Dantec forcément da nga naan lu rafet la lu baax la mais boo gëstoo ba ci biir jéen luñ la ci mënti wax luñ la ci mënti wax te waxuñu la ne la daan teg montage financier bi ñu ko bëgg a defaree scandale la jàppale ne ay léeb la c'est un scandale montage financier bi te man dama gëm sax ne sénégalais yi euh, am na lu baree bari lu ci journaliste yi wax. mais yëgaguñ lépp yëgaguñ lépp te man personnellement am na ay gëstu yu ma ci def personnellement am na yu ma ci continuer di def te bis bu nekk nga découvrir ci loo xam ne da naan lii nan la mën a nekkee ci Sénégal rien que pour tabaxaat ay hôpital mais loolu occasion dina ñëw ñu waxaat ci lu bëree bëri parce que damay wax très souvent ni dossier yu mel noonu li ma ciy gënal mooy boo ci dee wax nga wax ci lu la leer naññ loo xam ne kenn du ko mën a dindi man rencontre naa ñi nga xam ne dañoo déposé woon seen projet pour dem tabaxaat hôpital bi rencontré naa ñi leen waroon a financier ñi leen waroon a pour ñu mën a tabax mais après da ngay découvrir que ne ñooñu sax am na yeneen sénégalais yoo xam ne defoon nañ d'autres proposition pour tabax hôpital bi te proposition yooyu jëluñu ko dañu préféré jël proposition boo xam ne day jaay suuf la te sénégalais yi ma dégg yëpp ñu def ay proposition pour tabaxaat hôpital bi amu ci kenn koo xam ne dafa wax ne day jaay suuf pour tabax hôpital bi léegi lan moo waral jaay suuf bi c'est la grande question que chaque sénégalais à le droit de se poser lan moo waral jaay suuf bi euh, tey suba rek am na benn ancien compagnon bu Ablaye Wade bu ma bind benn text bu am solo ma koy nuyu au passage di ma wax ne Moustapha li ngeen wax nii de leen ci kon continuer di wax parce que bi ñuy tabax monument de la renaissance amoon na un sénégalais buy liggéey ci wàllu woowu ne artiste bu ñëpp xam mondialement connu proposé woon Ablaye Wade liggéey monument bi. ni mu ko bëggee avec un autre montage financier boo xam ne du coûter Sénégal li mu ko coûter mais lan la gars yi préféré dem jaay suufu aéroport beeg Wakaam ne moom la ñuy financer euh, nu mu tudd financer euh, tabax monument bi résultat bari na ay sénégalais yoo xam ne jaayu suuf moom ci lañ nekk ay milliardaires am na ñoo xam ne ci lañ amee ay kër dëkk fa am ñoo xam ne ci lañ amee ay kër jaayaat ko foofu noonu tey jii hôpital Le Dantec pratiquement le même montage financier la ñu nekk di fa defaat e loolu man dama gëm ne député yi nga xam ne moom la ñu fal te ma leen doon tudd sànq ameel nañu senegale yi gëstu pour xam su fekkee ne ñun ñoo juum. que ni affaire bi amul scandale amul dara seen normal ñu tabax ko noonu député yi def ci commission parlementaire wax ko ne sénégalais ñoo juum su fekkee ne état bi moo juum moo def loo xam ne c'est un scandale ñu wax leen clairement c'est un scandale suñ ko mënee jubbanti ñu jubbanti ko pour man c'est extrêmement important cette histoire de la Dantec kenn mënu ko bàyyi mu mu demee euh, mu demee noonu mais yàlla na fekk député yi aussi comprendre lan mooy seen mission. parce que su ma déggee tey ci suba ku mel ni Guy Marius Sagna dama ne moom teel naa comprendre lan mooy mission wu député parce que quand il dit que man bu ma euh, jarul ngeen may woowee honorable man ngeen ma woowee mbindaan mi wala surga gaa yi ma ne kii xam na luy député député effectivement suñu surga la war a doon di dox suñuy soxla di dox suñuy yónneen di di di def loo xam ne ñun mënuñu faa àgg suñ kàddu mënu faa àgg moom mu yeggale fa suñu kàddu e loolu euh, bu député yëpp melee noonu xëy na hmm, dinañ leeral mbirum hôpital de ma doon wax kon ne lii nga xam ne mooy élection législative yi conseil constitutionnel joxe day changer ay plan yu bare bare bari autant surtout côté majorité bi mais également côté opposition te dinaa ci ñëw benn par benn wax naa la ne la sénégalais yi joxuñu Macky Sall majorité maanaam joxuñu ko 83 députés yoo xam ne moo koy permettre du soxla ndimbalu kenn pour def li mu bëgg a def parce que su ma la fàttalee. waa Bennoo Bokk Yaakaar bi président Macky Sall jiite ñu ngi jugee ci quatre euh, cent vingt cinq députés assemblée ba ñu génn wàcc ci quatre vingt deux députés que quarante trois députés sénégalais yi nangu nañ ko ci ñoom jox ko ñeneen jox ko opposition bi muy benn. moo tax su ma gisee ñi ñuy fëgg seen dëj di jubilé dama naan ñii euh, comprendre nañ li xew dañuy dañuy nax seen bopp te mag muy nax sa bopp moom waa ji nee na. Eh, kum neex nga jaaxaan naa naaju tàng jër nga ne gis ma jant kenn mënu ci dara waaye ku jaaxaan di saw également yow yaay njëkk tooy beneen bi mooy boo xoolee jéen élection yi ni mu demee nga xool camp bu nekk résultat yi nga am camp bu nekk dafa am lu am solo loo xam ne sénégalais dañ ci war a bàyyi xel mooy boo waññee carte sénégalais yi voteel Benno Bokk Yaakaar day toll ci un million cinq cent dix-huit mille nangam nangam soo xoolee sénégalais yi nga xam ne dañoo voteel yeewe askan wi mu jox la un Euh, lu teg tuuti déjà c'est une performance pour Yewwi Askan parce que bariwul coalition opposition di dajale autant de suffrages ci élection législative un million boo ci jëlee yokk ci quatre cent et quelques mille yi nga xam ne moom la waa wallu am donc nga jël intercoalition Yewwi ak wàllu boo dajalee carte yi ñu am dajale carte yi bennoo am dañuy raw bennoo ñoom dañuy raw bennoo ça veut dire que tey sénégalais yi li ñu li ah, li Sénégal yi yi exprimé wu en tout cas ñi voté ñëpp ci ñoom voté luñu président Macky Sall ak camp boo ci doolee li nga xam ne moom la Thierno Alassane Sall am te man ma gëm ne Thierno Alassane Sall opposant la soo ci delloo li nga xam ne moom la Pape Djibril Fall am te man ma gëm ne Pape Djibril Fall opposant la dangay gis ne opposition bi ñoo ëppale ay voix fuuf Benno Bokk Yaakaar et loolu day indi ay changement ci plan yi nga xam ne moom laa la bëgg a léegi donc même bu fekkee dangay jël li Pape Diop am muy plus fort restam boobu dollil ko waa Bennoo ba léegi opposition am ñoo leen ëppale ay voix je dis je dis pas député mais ñi leen voteel carte yi ñu am comme ni ko sama maam di waxee ku nekk carte bi nga am carte yi ñu leen voteel donc soo jàppee loolu da ngay gis ne benn plan dina changé mooy président Macky Sall neuf mois ngi nii wala lu ko jege mu war a nome premier ministre lank ne du ko nommer parce que dafa ñëw ne sénégalais yi. dama bëgg ñu rétablir en procédure d'urgence li nga xam ne mooy poste premier ministre parce que daf ko fi dindi woon ne dafa bëgg liggéey bu gaaw fast track fast track liggéey bu gaaw am na ñu ne xam ne sax am na nee nañ d'autres raisons moo taxoon mais loolu la de loolu la waxoon dindi ko bi mu ko dindee ne léegi danay dana falaat premier ministre en procédure d'urgence ñu voté ko ko ça veut dire que ni daf ko war a gaaw gaaw voté daf ko war a gaaw gaaw fal la mu waxoon mooy Euh, du ko il faut mu fal premier ministre parce que comme nekk na président union africaine yenn saa yi mu war a dem Mali yenn saa yi mu war a dem Tchad yenn saa yi mu war a dem feneen il faut mu am koo xam ne moom mooy ni ci réew mi di gérer les affaires courantes jël lu mat juróom-ñeenti weer a ngi nii président Macky Sall nekk président union africaine wala lu ko jege di dem di ñëw te nommé wuñu premier ministre ça veut dire que ni procédure d'urgence bi ñu doon wax ay ay ay naxsaal rek la ñu toog ba mu neex ko mu ne élection locale ñu jëm il faut ñu xaar ba élection ñu ne ko d'accord c'est très élection locale jàll mu ne élection locale ak législative yi sax dafa jege jege koo xam ne soo fa nommé premier ministre majorité bi changé euh, il faut nga changé waat gouvernement donc nañ bàyyi. fi mu ne nii xam na li xew xam na nu assemblée nationale taxawoo il faut mu nommer premier ministre mais dafa changé ay plan parce que tey su fekkoon ne sénégalais yi voteel nañ ko ci majorité bu écrasante mu amaat par exemple cent vingt cinq députés yu mu amoon xëy na kon li mu dencoon ci poosam ne kii laay de premier ministre wax nañu ko bu yàgg ko changé. mais le fait que tey mu xam ne sociologiquement il est minoritaire dans le pays ba pare euh, majorité bi mu yor maanaam c'est une courte tête c'est tellement fragile que mën na toj à tout moment loolu dafay changer ay plan ci wàllu premier ministre bi mu war a fal nga ñëw ci président assemblée nationale xam nga dinañ fal président bi bu njëkk législature yi jàll président Macky Sall moom mooy toog bureau jël bigam bind waa groupam woo leen ñu ñëw toog mu ne leen Moustapha Niass laa bëgg mu nekk président assemblée après Moustapha Niass diw mooy nekk premier vice président diw mooy nekk deuxième diw mooy nekk troisième ba mu jeex président commission yëpp mu waxtaane ko ak ñoom ñu juboo ci bu ñu demee assemblée dañu ñëw rek appliqué mais bii pas loolu dafa wóorul jéen parce que 83 la am ñi muy xëccool am 82. loolu li muy tekki mooy tey bu fekkee ne waa Yewwi waa Wallu ak Thierno Alassane Sall ak euh, Pape Djibril Fall. parce que Pape Diop mën ko doog a boole moom tànn na kawam bu fekkee ñoom dañoo dajaloo ñoom ñëpp dajaloo ne ñun kët dañuy dajaloo léegi waxtaan ne ñun dañuy proposer je sais pas mois Guy Marius Sagna mu nekk président assemblée wala ñu ne dañuy proposer Thierno Alassane Sall mu nekk président assemblée wala ñu ne dañuy proposer Pape Djibril Fall mu nekk président assemblée ñu waxtaanee ko seen biir ñoom am nañ 82 voix yoo xam ne ñoom am nañ ko téye suñ ci waxtaanee ba jubóo ci laa wax am nañ 82 voix léegi. ñu ñuy xëccool am 83 ñi ñuy su fekkee ne président Macky dafa proposé kenn koo xam ne am na kenn ci kanam ku ci d'accordul wala ñaar ñu ci d'accordul bu ñu deful nag président assemblée jóge opposition pourquoi parce que bu ñuy à moins que ñu changé li ñu daan def mais bu ñuy voté di fal président assemblée scrutin vote bi secret la dañuy teg urne ku nekk ñëw dugal sa xob su ko defee ñu wàññi. mu war a nekk cent cinq xob ku ëppale yow yaay nekk président assemblée imaginons imaginons ñu ñëw président Macky Sall ne léegi man dama tànn euh, je sais pas Mimi Touré pour mu nekk président assemblée am ñaar ñaar rek ñaar donc ñu bokk ci kawam yoo xam ne d'accorduñ ci loolu mën nañoo toog bañ ko wax buñ demee ñu bañ a voté loolu carte gi yëpp day changé lépp day changé alors que bu njëkk ba soo nee Moustapha Niass la te am nga 125 députés yoo xam ne sûr kër yi dinañ ko voteel même bu fekkee am na ñaar ak ñett yu mer mënuñu ci dara mais fii bu ñaar meree mbir mi tàkk donc président Macky Sall marge de manœuvre am dafay réduire bu baax a baax a baax beneen boo xam ne dina changé mooy xam na ne l' électorat ni ñu comporté woo pendant les locales ak les législatives mooy dafa am benn classe politique boo xam ne lee électorat sénégalais moo décidé ne ñi ñoom dañ leen di mooy paay enfin safurla bëgguma tooñ kenn mooy ñi ngay gis ñuy génn fan yi di défendre ay haut conseil des collectivités locale j'ai bien aimé le titre du du témoin tey ñu ne les conseillers du collectivité du haut conseil défendent leur pain et leur gain mais wax na dëgg seen coow lu bari yëpp c'est pour défendre leur pain mi ñu yor di lekk du leneen léegi génération boobu dafa mel ne l'électorat sénégal dafa décider ne ñi ñoom dañuy pare ci ñoom remplacer leen par une autre génération muy ñoom Barthélémy Diaz Ousmane Sonko Guy Marius Sagna mën nga tudd Malick Diop bu bu bu bu AFP mën nga tudd Abdou Karim Fofana Abdou Mbow ñeneen ak ñeneen ak ñeneen je sais pas man xaw ma euh, peut-être les sociologues ñoo ma gën a xam euh, ce comportement la wala book ñuy jàng science politique mais en tout cas seetlu bi mooy soo demee assemblée tey assemblée bu jeune jeune la ñuy am. bu jeune jeune la am parce que tu as l'impression que ni euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di politique je dis même pas depuis 60 mais depuis 2000 ak léegi ñu ci bari sénégalais yi commencé nañ pare ci ñoom te li koy waral mooy seen ay comportement soo gisee Idrissa Seck tey euh, keroog bi ma benn waaye ne est xam nga ne Idrissa Seck parti amatul député amatul maire dama ne ko mais attends maire moom je crois que am nañ ko ba léegi mais parti bu toll noonu dem ba amatul benn député nga xam ne lu ñu am ci politique dañuy. yaakaar Macky Sall moom pour mu jox leen ko ça pose problème parce que réew parti boobu parti bu riche la ci ay cadre ak ay xam-xam boroom xam-xam su demee ba lu mu mën lu mu yaakaar il faut mu laaj ko euh, Macky Sall ça pose problème parti bu mel ne PS tey assemblée bi su ma jiwul PS juróom-benn député la ci am or PS juróom-benn député te bi ñu koy taxawal ñoom Guy mari Sagna ak ñoom Barthélémy ñi seeni papa boobu buñ juddoon ay xale lañ. seeni papa laa wax tey jii le Pastef à lui tout am na pratiquement une trentaine de députés en tout cas ñu ngi ci vingt quatre jëm vingt cinq yooyu su ma juumul nga xam ne tey le Pastef moo ëpp doole PS ci réew mi te Pastef bi mu juddoo léegi mot bu ma tey juróom-ñaari at la yam ñoo ëpp doole PS ci réew mi mais loolu ça pose problème AFP bu Moustapha Niasse moom n'en parlons plus ay PIT ak e yeneen ak yeneen yooyu moom euh, waxatuñ ko donc dafay changer forcément. li nga xam ne moom le président Macky Sall bëggoon a bëggoon a def également dafay montrer beneen affaire mooy président Macky Sall dina comprendre wala boog sénégalais envoyé nañ ko message ne ko ñi nga xam ne ñooy les activistes médiatiques du pouvoir parce que man noonu laa leen jàppee mooy ñi nga xam ne jéen soo dee xool amuñu benn base politique c'est des gens yoo xam ne dama yàlla bal ils sont sortis du néant des femmes et des hommes amuñu benn base politique xamuñu sax xamuñu sax fu dëkk ñoom. ñooñu émission télé boo gis ñoo fay nekk fu conférence de presse bennoo amee nga nga gis leen ñëw toog ku nekk ne nii ku nekk di jaay France laa jàngee xamu fan laa jàngee amuñu benn benn njëriñ ci wàllu politique en tout cas mënuñ ko indi Macky Sall te ñooñu ñooy ne ci plateau télé yi di saaga nit ñi naan on assure la victoire au président le président lii le président laa tey sénégalais yi wan leen ne ne président Macky Sall les activistes médiatiques là nga xam ne ñoom nga am ci sa parti ci waa Bennoo amaluñ la benn njëriñ parce que mu kenn du leen voté waaye kenn du leen voté ñii nga gis del seet rek bëgguma lim tour di juum mais seetlu ñi ngay gis ci télé yi rek suñu émission yi ñun ak émission yeneen chaîne de télé yi nga xam ne ñoom ñooy gën a ñëw waa APR sax léegi pour nga gis leen problème la mais ñoom ñoom ñooy gën a ñëw di wax rek di wax rek ku wax ñu saaga la wallay saaga journaliste yi saaga opposants yi euh, kenn amu ci fukki nit te élection yi wane na ko gisoo kenn ku falu oui gisoo ci kenn ku falu d' ailleurs ceux qui muy ñu mel na ñoom Abdou Karim Fofana ñoom euh, Malick Diop même Thérèse Faye ab du Mbow nga xam ne depuis quelque temps ñooñu il parle ñooñu sax am nañ ay militants même bu fekkee Abdou Mbow dafa dafa ñàkk Thiès Malick Diop point E la doon la campagne il est élu la liste nationale ñeneen ak ñeneen ñoom Matar Ba ñoom Ablaye Sow ñooñu bu leen neexee wax mais ñoo xam ne. koo ci gis muy rouler ay R man dama leen xool yàgg rek jàpp ma amuñu fukki nit ñooñu la président Macky Sall jël fàtte waa partem jël responsabilité yëpp jox leen boole leen ak quelques PAC ak quelques maires mooy ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom Moussa Niass ñoom euh, ñooñu ñooñu ku nekk mu jox la benn fromage nga téye ñooñu sénégalais yi war nañ ko à travers ces élections là ne ko du ñii ñooy tax ñu voté te loolu dina changer lu baree bari ci ay plan